minuit la woon euh, fële ca direction générale des euh, élections euh, li ñu nemeeku nag mooy ñaar fukk ak juróomi dossiers yi nga xam ne ñoom lañu doon annoncé fukk ak juróom dong ñoom ñoo jot déposé waaye dégg ngeen sànq directeur général des élections di ñu xamal ni amul benn forclusion maanaam kenn tardewul ñu waroon déposé yëpp yegg si nañoo ba déposé seeni dossier fi mu nekk ni nag vérification parrainage yi nga xamal ni tey lay door euh, ci euh, altine bi euh, ak publication nag publication finale bi nga xam ne ñoom ñoo war a jongante ci élection yi nag ci njeexitalu weeru mais bi lañu koy euh, xam euh, ba léegi ci euh, xibaar Ousmane Sonko mi nga xamee ni mooy njiitu Pastef moom la ñu jàpp ni moom mooy jiite liste nationale bu coalition Yewwi Askan Wi soo demee fële ca coalition Benno Bokk Yaakaar foofu nag Aminata Touré nekkoon fi ci jamono premier ministre moom mooy jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi wax tamit ak euh, lëngo bu nar a am ci diggante euh, Yewwi ak euh, wàllu bu PDS wàllu nga xam ne waa PDS ñoom ñoo fa jiite loolu nag dina am ci yenn ci département yu nekk fii ci Sénégal ak i tamit ci diaspora bi Euh, ñu wax ci euh, leneen euh, di ab pénurie papier pénurie papier nag soo ko déggee nag da ngay yaakaar ni taskatu xibaar yi rek la soxal waaye jéggi na ko déjà l'observateur mi ngi xamal ni fii ak ay fan soo moytuwul benn journal du génnati ndaxte amuñu papier bu ñu bind waaye tamit ci délivrance papier administratif yi tamit mën na fa am euh, impact euh, tenue élection législative yi ñu jëm tamit bokk na ci ak surtout tamit examen et concours yi nga xamee ni euh, ñi ngi koy waajal ci fin d'année bi pénurie papier boobu nga xamee ni moom la ñu nemmeeku fii ci Sénégal jamono ji mën na ko gàllankoor bu baax a baax di wax ci wàllu tàggat yaram ak coow li nga xamee ni moom moo am ci Ligue 1 bi démb fële ca Louga ci diggante Jaraaf ak njàmbur bu Louga foofu nag ay euh, maanaam violence am fa Euh, ginnaaw bi ñu sifflé benn penalty boo xamee ni waa jaraaf lañu ko sifflé loolu nag naqari waa Louga yi ba euh, ñu andi fa coow entraîneur jaraaf bi nag moom jot na fa jàppante ñoom ba sax am gaañu gaañu ba ñu évacuer ko waaye waa Louga yi daal dañoo jàpp ni day tappale dara jotu ko kenn dóoru ko euh, waaye arbitre bi moom gis nañ ko mi ngi noonu ci photo yi dañu ko xaañ moom arbitre El Hadji Babacar euh, Faye euh, match ba nag jaraaf moom moo mujj gañe euh, benn bal ci dara waaye jot nañ ni yëf yi narta yem foofu Euh, ñu wax rek ci euh, résultat yi résultat vingt unième journée yooyu ci biir terrain bi ak yeneen match yoo xamee ni am na sans problème bokk na ci jàmbaar bi nga xam ne dafa dalal Linguère daan ko ñetti bal ci dara te Teungueth FC euh, yeewu bu baax a baax nag fi mu nekk nii ma ngay jël ay distance am ak ba tableau bi daan Mbour Petite Côte ñetti bal ci benn AS Douane jàpp Casa Sport mi nga xam ne moom moo jiitu ci classement bi daan ko ñaari bal ci benn. US Gorée Génération Foot def match nul 0-0 euh, Seneps nag jàpp pikin noggatu ko benn bal ci dara pikin moom fi mu nekk ni seen taxawaay baaxul dara ci Ligue 1 bi naan loolu moom du neex Chérif Dia euh, ñu wax ko ñu jeexale ko ci euh, Guédiawaye FC Dakar Sacré-Cœur ñoom nag dañoo def match nul ku nekk benn bal la dugal ak jaraaf mi nga xam ne dafa dem jàmbur euh, gagné fa benn bal ci dara ci classement bi nag euh, fi mu nekk nii Casa Sport moo jiitu ba léegi am 39 points waaye jaraaf nag ma ngi koy ne bu baax a baax ndaxte jaraaf moo jël léegi ñaareelu place bi ci génération foot am 36 points donc ñetti poñ donc moo dox seen diggante bi génération foot nekk ñetteelu place bi ak 34 points. bat tableau bi Dakar Sacré-Cœur nekk premier relégable ak 21 points 14e Mbour Petite Côte lanterne rouge am 17 points soxna Nata. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Diaw euh, Chérif ci kanam tuuti incha allah di nga wax ci affaire violence ci stade bi. waaw il faut condamner et bi jël seen i matukaay ñiy def violence ñu teg leen ay daan yu mat bu ko defee. bakkan bañ fee root parce que lii buñ ci waxoon mi ngi commencé quand di bëri ci yenn dëkk yoo xamante ni saa yu ñu fa demee fitna am fa. Hmm. gis nga bu ne ba ay jours ñu leen di jël ci auto police bu ñu waaj sax da nga yaakaar ñun leen doon rawale. génn leen doon rawale ngir génn leen ba Louga ci wetu SPA ba ñu mën a jël seen bis pour ñibbi si Dakar lii tey xam lii dafa ñaaw lii kon ramasse ak vayu yi la def fii ci oto yi. lii ay jour la yoo xamante ni dañ leen di muccal ngir c'est grave. ñoom ci seen bopp sax yëf daf leen def ay reetaan finalement mais Sénégal la xewee mbokk li ngeen gis nii jouro jaraaf yi ñoo nekk ci auto police bi kenn ramasu leen. dañ leen doon rawale ngir. ñu bañ leen ñu ñu gaañ leen voilà muy loo xamante Euh, bi match bi lañ ko xaañ. lañ ko xaañ moom lañ gis sànq ci image yi voilà jël jël jël ay responsabilités dem na ba léegi mm-hmm. di fees et boo xoolee tey mm-hmm. ligue championnat Sénégal. Mm-hmm. dañ ne woon amul popularité mais ñëwaat na nit ñaa ngi dem ci stade yi. on va en reparler il faut que lii nit ñi taxaw ci. ci kanam tuuti ndax waxtu bi mi ngi ñuy dab léegi dañuy jàll ci xibaaru biti réew ñaan di ceeg Fatou Kiné dem